de la PR, il y a une solution à tous les problèmes. Il déclare que le ministre du Tourisme doit continuer de travailler auprès du chef de l'État, Macky Sall. Mame Mbaye euh, la ci parti bi ndax liggéey na ci lu bari moom ak ay ñu mel na moom parce que boo xoolee. Mame Mbaye Niang responsable et il a beaucoup fait pour le parti. Lui et d'autres responsables. Il a contribué également à la création de l'Alliance pour la République. Donc, je lui demande de revenir à la raison. et de discuter avec le président, parce qu'il a toujours été à ses côtés. Il y a une solution à tous les problèmes. Mambéna doit se ressaisir et continuer son travail auprès du président Macky Sall. mag ak rakk la kon euh, amul lenn luñ ci koy wax lu dul mu deltu waxtaan ak ki nga xam ne mooy kilifaam ci wàllu politique muy le président Macky